cœur du Sénégal et l'illustration de votre engagement derrière le président Macky Sall, mais aussi de l'affection que vous avez pour le cœur du bassin arachidier. Honorable député, présent aussi par une délégation massive que je voudrais saluer. des sociaux, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, chers collègues maires de la région d'abord, de toute la région, de tous les quatre départements. Mesdames, Messieurs les présidents du conseil de département, au nom desquels le président Abdoulaye Wilane, mon grand frère, a si bien parler euh, mbokk yi Kaffrine foog ni kàddu gi bu fekkente ni rek bisimila la mënoon nañ yem ci kàddu suma mag suma xarit Abdoulaye Wilane ci lim fi wax ci nasaraan waaye duñ ubbi phase nationale tànn Kaffrine war fi def mu am de quarante issus des 14 régions du Sénégal war fi jogante durant deux semaines et mu nekk la première fois dans l'histoire su ma jëlul dina xaw a ñam ndax ñu d'abord man ci famille sportive boobu la bokk nawetaan boobu laa soqee ko ci terrain bii ñuy fubal nii amul woon gazon amul suuf kese lañ doon fubalee fii dama amee deux minutes ñu ànd match yàlla yàlla ak président Macky Sall indil nañu coono boobu ba mu jeex tàkk Kaffrine di joué ci stade bu am gazon synthétique de dernière génération mu am lumière yu nga xam ne amul fenn ci Sénégal dans un stade aussi rénové loolu président Macky Sall bu ñu amee léegi ñuy football phase nationale ca Kaffrine ici à Kaffrine il y a dix ans. kenn mësu koo xalaat waaye le génie l' engagement et le sens de l'équité territoriale du président de la République tey ñu ngi football ci biir Kaffrine président Macky Sall foofu président Macky a redonné à Kaffrine sa dignité de capitale régionale nous avons l'un des plus beaux hôpitaux du Sénégal bientôt nous aurons la plus belle sphère administrative du Sénégal dans l'histoire monsieur le premier ministre

lourd ribot monsieur le président de la république dafa soppi Kaffrine de manière drastique kooku munoo am ku mel noonu monsieur le premier ministre nga ñëw ngay lam-laamee say li ma wax tey démb loolu laay waxaat tey loolu laay waxaat ëllëg man ci leader politique nekk président la république mu bañ a nekk président la république Macky Sall est mon leader et ma référence en politique. Je ne cesserai de lui témoigner ma reconnaissance. C'est pas pour ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait pour cette région. Cette région qu'il a sorti de l'oubli, a sorti L'histoire retiendra que de tous les présidents qui sont passés ici, Macky aura été celui qui a le plus marqué de, manière indélébile de par, par ses actions dee ci loolu laay gëm te ci waxtu wu ñu nekk nii loolu laay tiddeel ci te la may def Macky Sall bu ma joxoñalee ku mënta joxoñ ma topp ci ginnaawam taxaw pour waa Kaffrine Fall loolu mooy su ma taxaw waaye nag monsieur le premier ministre defal nga ñu ñaari teranga bi ñuy ubbi fii festival national des arts et de la culture muy FESNAC ministre Aliou Sow suma xarit organisé ko fii ci région de Kaffrine et pour une première vous avez accepté au nom du président la République de venir présider c'était la première activité nationale reconnue que Kaffrine avait organisée tey monsieur le premier ministre nga joxaat mënoon ñu nga jox ngant mënoon nga jox ngant sa calendrier chargé na nga bàyyi lépp nga mobiliser plus douze de nos ñu ñëw taxaw ci sa wet pour que lancer les phases nationales monsieur ministre su ma waxul ni am nañ de bonne relation maa ngi bëgg a nekk naafeq te man du ma naafeq suñu relation mag ak rak chef de gouvernement ak ministre c'est des relations au beau fixe je vous marque tant que le président Macky Sall fera confiance, vous aurez ma, mon total engagement et ma totale loyauté. Et monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, c'est les Sénégalais et c'est les Sénégalaises qui parlent de vos qualités, de vos Avant d'être un homme compétent, vous êtes un homme courtois. Et cette courtoisie peut vous mener à tout, monsieur le Premier ministre. c'est pourquoi tey sa ñëw fii dama ciy kontaan ñëw bi tamit nga indil ñu douze ministres ci dama leen di cité parce que loolu dafit mu su koo am le ministre des mu teg nit bu defaree nga wax Moustapha Ba est un fils de la région mais du loolu bu ko neexoon mu dem ni ministre des finances yëpp c'est la première fois qu'un ministre des finances vient ici à Kaffrine ministre de l'éducation nationale Cheikh Oumar Anne moom suma xarit la nekkoon suma patron ma nekk directeur goutte mu nekk ministre de l'enseignement supérieur mu won ma fa teranga won ma fa mag won ma fa xaritoo loolu mooy woy ba tey ma gërëm ko gërëm le ministre d'État Omar Sarr. Omar Sarr, Omar Sarr, c'est un homme honnête, qui a le sens de la vérité, dont je m'honore d'être le, le, petit frère. De tous les temps, Moussouman Naboudou, Omar Sarr. Omar Sarr, tamit kooku gis ci terrain de football, à part Dagana, fii nga koy gis ci terrain de football. loolu itam ñu gërëm le ministre d'État Omar Sarr. suma xarit de longue date parce que moom itam mu lépp bàyyi activité am activité am de candidat yëpp dem fii muy sama xarit Moustapha Diop ministre de la moo fi njëkk a dugal dans cette région 400 millions de francs CFA jox fa Moustapha aussi ñu gis ci activités yi bëriwul koy gërëm ci teewaayam fii. Birame Faye kooku sama rakk la sama xarit la sama compagnon la ma gërëm ko ci teewaayam Isaaxa Diop ak Birame ñooñu samay rakk lañ kenn mënul cee naam daf leen lu ñu lëng ak li ñu bokk ma boole ci Samba Ndiobène Ka Samba Ndiobène Ka du gan ci Kaffrine moom itam bu mu nekkee ministre développement communautaire moo fi dugal un milliard dans cette d'appui aux familles démunies moo fi dugal Promoville Promoville jox ñu 7 kilomètres Mansour Faye yokkaat ci 4 kilomètres muy 11 kilomètres de voirie urbaine dans la seule commune de Kaffrine kon sama jël moo fi ñëwee nekkoon fi gàtt ma terminé nag ci ñi nga xam ne ñoo bokk région bi ñoo bokk région bi nekk ay xarit nekk ay doomu a wax ni ñi xam ni dañuy ut. li Wilane di wax jàpp nañu ndox dafay doon dafale lii duñ ko am ci Kaffrine parce que le ministre Aliou Sow et ak le ministre Doudou Ka nous sommes tous fils de la région fils de la région Doudou Ka milite à Ziguinchor mais ëpp ma ko doole ëpp ma ko racine ëpp ma ko deret ci biir région de Kaffrine mu nangu ñu lëkkalante ak ministre Aliou Sow joxante na ko le président Macky Sall. pour matérialiser sa action son action et sa vision dans la région. kon ñooñu ñëpp ñu boole suñu doole ku ci nekk jàpp ci ñu war cee sant yàlla.